jërëjëf Bamba yaa mat àndal mbokk jullit yi mbokk taalib yi rawatina ñi nga xamante ni ñu yëkkati xasida ci diwaan Touba ak li ko wër muy lu am solo lu am njariñ te wolof jaay nee na booloo mooy doole ba tax na ki nga xamante ni mooy Serigne Khadim Sarr xasida taxawal association bu mag lëkkale ci mbooleem koo xamante ni yaa ngi yëkkati xasida ak ñi nga xamante ni ñooy soppee xasida yi bëgg a firndeel rek li ñu waxoon ne mbooloo mooy doole moo tax Serigne Khadim Sarr mi ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn tàllal nañ ñëpp loxo képp koo xamante ni yaa ngi sopp xasida yi wala ngay bëggee xasida yi wala ngay jànkatu xasida yi Serigne Khadim Sarr nee na ngir ñëw diw ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo ndax gis nañ ne daal mbooloo mooy doole moo tax sëñ Xaadim Sarr créé association boo xamante ni xasida yi ak soppe xasida yi ah ni bu ko kenn wuutee buñ ne soppe xasida yi ak jànkatu xasida yi nag fàtte wuñ animateurs yi ñi nga xamante ni ñooy waa sonorisation Xaadim Sarr nee na tàllal nañ ñëpp loxo kon daal génnewu ci kenn ndax jànkati xasida yi ak soppe xasida yi Xaadim Sarr nee na ngeen ñëw ñu ànd nekk benn ah mbokk yi kon daal loolu am na solo kon war naa tax képp kuy bëggee xasida yi rek rek moo affiché képp ku ci bëgg am lu leer woote ci numéro yi nga xamante ni moo nekk ci écran bi yaakaar naa boo wootee danga nga ci am lu leer nañ kon daal mbokk yi bu ko kenn wuutee lu jara bokk la ndax lépp rek mi ngi jëm ci siraatal mustaqim ak dooleel li nga xam ne moom lañ bokk te mënuñu koo séddoo a ah, bokk yi kon nag na ci ñëpp dem bindu ji bokk ci te yaakaar naa bu ngeen yeexee rek place dutu faam